lekkam ba muy jóge ca kër ga ci loi et bi nga xam mooy administration pénitentiaire lekk saa yu ñëwee pour ñu ñu musul am mbokk kaso ñu ci bëri am nañ ko xam nañu lekk saa yi lekk ñëwee dañ ciy def benn carton bu ñuy bind numéro numéro bi ak tour bi numéro bi numéro chambre bi la carton bu ñu def numéro chambre bi bu dee numéro euh, euh, chambre 13 ñu def ci carton bu ndaw ñu def ci 13 bind ci suuf aamadu njaay ñoom dañ koy ubbi buñ ko ubbee jël ay fourchette commencé loqati ceeb bi ba mu jeex tàkk pour xool ba xam suuloo fi drogue wala suuloo fa paaka wala suufoo dañ koy visiter bu ñu jëlee seen gant sol visiter ceeb bi ba mu kii ubbi jën yi xool ba xam jën yi dugaloo ci drogue wala dugaloo ci dara bu ñu xoolee ba xam ni bool bi dara nekku ci lu nu ceeb ak ak jën wala ak ay soos wala whatever ñu takkaat bool bi tegaat bu ñu ko defee ba mu jeex tàkk ñu jël ceeb ya et tout dugal ko moo tax muy dugg foofu ay deux heures ay quinze heures wala quatorze heures nga jot sa bool parce que mënuñu jël bool bu ñëw rek ñu jox léegi ñoom euh, ñoom euh, administration pénitentiaire loolu lañ wax ne ñoom du ñu nangu kenn ku indi bool jox ko ki nga xam ne mooy détenu bi mu lekk te du jaar ci ñoom loolu moo nekk coow li Ousmane Sonko tamit grève de la fin parce que moom it wóoluwu ñoom wóoluwuñ ko moom wóoluwu leen am na ci droit parce que Ousmane c'est pas n'importe qui aussi mais du dañ ko bëgg a forcer seen lekk jagan bi amul benn yoon buñ ko jéem a forcer Ousmane Sonko problème bi nii la demee am na nag ñuy génn bugg a gëmloo gars yi bu leen mooy audio yi jabar Ousmane Sonko bi génn na nee na audio waxul audio du ay audio moomul audio yi xamul fa audio yi jóge kon bu ñu ko taqal nuróowul ak sax aana jamanka boobu ba léegi maa ngi koy dégg bu may live ça fait trois jours maa ngi live ay nit ñëw di ma bugg ma wax loolu ma xamut moo laa nee leen Ousmane Sonko grève de la faim wul ñoom ñoo ko bëgg a jox seen lekk man yooyu nekkuma ci dinaa leen waxal benn affaire barki Seydina Muhammad bokkuma Pastef bokkuma APR duma ma politicien man ab rappeur laa kaaskat activiste di bañ injustice moo ko gisee kuñ ko teg dinaa ànd ak yow xeexal ak yow xeexal la mais kenn fayu moo ko war a tax may di ma du fenal sax sama papa sama papa sax bu ma waxoon fenal ma bañ sama yaay bu ma waxoon fenal ma lànk donc kon du ma fenal Ousmane Sonko wala di xenal ku neex keneen bu ma ko defal sama papa du ma ko defal sama yaay du Ousmane ko laa koy defal du keneen laa koy defal dëgg bu ma ko xamul noppi parce que faruma ci benn parti boo xam ne dama leen di fenal pour après suba ñu am ma am lu ma lekk du ma fenal kenn tamit parce que fii nii di fen mu am mille personnes yu ma suivre amuluma benn njëriñ parce que mille yooyu noonu buñ demee seen yoon dërëm du yokk ci sama poos donc man fen nekkuma ci mun naa nag juum ci information nit jox ma information ma juum te saa bés bu yàlla mayee possibilité ma xam ni kii li ma joxoon damay juum damay ñëw changé ko pour wala ni ma dëgg rek ko ma ñor bés boo ma joxee information yow benn Pape Gueye jox ma info wala Pape jox ma information ma wax ko ma dem ba xam ne jëmmi jamono que lii ma wax nii du dëgg man moo laa damay génnaat ne eh lii ma leen waxoon du dëgg lii ma dëgg parce que wutuma ci dara wutuma ci dara wutuma ci nit wutuma ci lekk wutuma ci naan wutuma ci alal wutuma ci vie donc man dëgg xàq bil xàq di wax dëgg te yàlla tax kese kon kenn mënuma yóbbu ci ay kàcc walla kàccal pour kii am nangam du ma kàccal kenn parce que man bu ma wéetee man ak sama bàmmeel la du fi kàccal kenn kenn jot sama bàyyi sax jaraluma ko kon du ma ko defal kenn du ma kàccal kenn bi demee ñi nga xam ne nag ñoo taxaw di wax ne nañ gëmloo gaa yi comme quoi Ousmane Sonko grève de la faim wul c'est faux Ousmane ko day grève de la fin day grève de la fin ba suñ jonn yàlla tey te dafa sonn fu mu tëdd dafa sonn trop day grève de la faim te dafa sonn maintenant yaakaar naa ni dégg ngeen ko gars yi génne nañ démenti ne audio boobu du seen audio waxuñu ko tey waxuñu ko ëllëg du seen audio du c'est pas vrai c'est archi faux ni ngi nii. digital yaa ngi ci biir. pardon. yaa ngi ci 313 digital. voilà. je suis en direct. Mhm, yaa ngi en direct donc je voulais en profiter. parce que gis naa ngeen dugal benn vidéo ne jabaru Sonko mooy wax ana mooy wax pour la wax ak population bi. Mhm. dama leen di wax ça c'est totalement faux. parce que yéen a ngi usurpé sama voix man maa defoon message yi dans un groupe. et ça a été repiqué jël ko dugal ko ak beneen image ñoom génne ko mais kooku jabaru Sonko mooy wax mais man maay wax. dégg nga kii wax audio bi sax génn na ne moom mooy wax du Sonko du jabar Sonko mooy wax lan moo tax ñu bëgg a jël ay kàddu jàmbur du ko féetale keneen pour crédibiliser ko jabar Sonko génn waxut mi ngi toog fu mu toog di lijjanti jëkkëram nu mu def nangam lan moo tax ñuy ja ñuy kàcc lu ko fi jar kàcc kàcc te bañ ma ko indilee avant démenti bi benn waaye ba mu ma waxee xoolal man mun naa leen mën naa leen wax waxtaan bi ba mu ma waxee li laa après daf ma ci la ma indil direct démenti bi dama ñëw ñu indil ma audio bii tey transféré mille fois xaw ma ay dix mille fois sax. waaw <coughs> salaamaaleykum maa ngi leen di nuyuwaat. naan donc euh, waa ji wax ni bind naa tout à l'heure depuis démb ou barki démb maa ngi koy bind ci panel bi. il faut plus que on est 414 membres ci biir groupe bi kenn kenn ci groupe bi waratul prononcer le mot grève de la faim. c'est un piège boo xam ne dañu ko tendre depuis le début donc moo boobu faut le bannir pour wax nag. kan moo ñu tendre piège boobu Ousmane Sonko moo nekk ci kaso bi ay nitam ñu dekk ci page Ousmane Sonko bu am un million de vues un million de followers moo bind ne Ousmane Sonko déclenché na grève de la faim ba pare ne bépp prisonnier politique na déclen déclenché grève de la faim loolu kan moo ñu nax kan lii du <laughs> lii du ay waxu nit. kii benn nit bu mel ni yow la rek bu am euphorie bu wax waxam donc kii Anna Diamanka mënul wax lii Ousmane Sonko moom ay nitam ñoo bind ci page am man awma accessibilité ci page boobu yow amoo ci keneen ak keneen donc ku koy bind xam na ni moom ku ko bind même bu dul Ousmane Sonko ñun nañu du Ousmane Sonko mais ab nitam amul fitu dugg ci page bu am ay un million de followers di fa wax lu dul dëgg Ousmane Sonko la ñu wax ne moo ne déclenché naa grève de la faim képp kuy prisonnier politique na ko déclenché après ñu am keneen ku bëgg a ñëw taxaw ne bu leen wax ne keneen grève de la faim dañ ñoom ko man non nañ bàyyi caaxaan yi man yi dama ko dul sax déglu tey laa ko doon déglu parce que tey lañ ko sànni ki ma ko sànni ba ma ko sànnee wax naa ko samay ñetti dëgg après ci la dem gëstu gis ni lu ma wax yëpp dëgg la mu ñëw ne ma am na ay demanti ñaari ojo la yu ñu partagé yëpp mais man moom dëgg fen mun na xëy dëgg da koy sax yu ma xëyee damay fexe ba fen boobu dindeeku ci laa tontoo waa ji nii ñu bind mu bindal ma c'est Anna la femme de Prou lii laa ko wax. waaw jaajëf waay Pape Diop naka mu ziar naa la waa lépp message mais mais Ousmane Sonko yaa ngi de la faim loolu moom vraiment euh, il faut arrêter Ousmane Sonko est en de la faim xaw nañ ko ceeb lekkul waaye Ousmane Sonko est de la faim moom ci boppam voilà ses avocats ont dit la même chose j'ai dit la même chose hier Juan Branco a la même chose Euh, Djibi Gueye Ndiaye quelque chose comme ça il est parti là-bas les médecins même les médecins non suggérés mais lu tax doo leen wax Ousmane Sonko mu arrêté grève de la faim loolu la wax ne moom ci boppam wax na Ousmane Sonko arrêté na arrêté grève de la faim Ousmane Sonko lànk bañ. tout ça xam nañ ñun ñëpp xam nañ ni gars yi empoisonnement lañ bëggee tout ça Ousmane Sonko lu tax nag. mu grève de la faim loolu moo xam xëy na peut-être daf ne jox leen ma ceeb bi sama ceebu kër laay lekk du ma lekk ceeb bi nangam ak nangam loolu moo tax mais Ousmane Sonko est en grève de la faim loolu moom <laughs> on le répète voilà foofu nag la contradiction amee parce que ces avocats ne peuvent pas dire que Ousmane Sonko est en grève de la faim ñun ñi nga xam ne am nañ information source que Ousmane Sonko est en grève de la faim Juan Branco un avocat à Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko est en grève de la faim après ñu bëgg a ñëw ci panel yi bu ñu gëmloo ni Ousmane Sonko euh, bëgg na lekk mais lekkul lekk këram wala bëgg nangam xëy na loolu moo nekk objectif bi mais Ousmane Sonko est un ñu bindoon ne Ousmane Sonko a déclenché une grève de la faim ñoom ñu def bind loolu c'est les avocats seen discours ne Ousmane Sonko grève de la faim mais loolu mënul nekk. on peut pas man boobu ba léegi gars yi ñu ma koy bëgg a imposé waaye waxal la gars yi ko indil lekk non du wax loolu parce que aw information boobu information bi ma am moom mooy moom la avocat mi am moom la ay partisan am ñoo ñëpp lu am moom mooy Ousmane Sonko mooy nekk grève de la faim pour l' instant loolu la ñuy wax ba gis leneen voilà bu boobaa nag ñoom bu ñu bëggee lii ñu wax nii waaye mais nañ dem wax ko waa Pastef waa Pastef def ko fuñ fu ñu bindoon ne Ousmane Sonko en grève de la faim ñu retourné waat même page boobu wax ne Ousmane Sonko arrêté na grève de la faim wala grèvul grève de la faim gars yi ñoo ko bëggul jox lekk bi <laughs> ñun ñun ñun nekk ñu Pastef jiitewuñu Pastef donc loolu noonu moom ci panel yi la yem ak Facebook beeg yooyu mais li nekk ci terrain bi ñuy wax Ousmane Sonko en grève de la faim la ñuy wax parce que ñu ko jege tamit xam ko ñooñu xam ne da ngay laaj Jibi Gueye nga la faim mais mënuñu mënuñu wax ne Ousmane Sonko newul en grève na lekk mi bugg na naan mais dafa amul ndox ndox ki ren wala dafa amul ko indiwul lekk non ñun mënuñu parce que ñun gisuñu loolu bés bu Ousmane Sonko de la faim dina ko wax boo boobaa waa seen page waa ngi fi Ousmane Sonko ñu ñu publier ko foofu jaajëf merci beaucoup wan loo jaajëf xew man moom discours walaay ba ba ma génnee déggee na Ousmane Sonko carrément li ñu koy ñaan léegi-léegi rek docteur am boobu noonu nga xam ne moom mooy moo yore sami bi wan wane nañ ko eh, Sénégal invité ko mu ne carrément mi ngi wax Ousmane Sonko bind na ko ne ko bàyyi grève de la faim Ousmane ko dafa làng waaye nag grève de la faim donc après ñu bëgg ñoo loo fii nii que non bu leen wax loolu këram ñu ko indi ceeb bëggul lekk ceeb bii bëggul lekk ceeb bee su bëggul suuf kanja doomu daa la bëgg non on n'est pas dans ça on n'est pas dans l'émotionnel on n'est pas dans xam nga créer ay affaires yu amul wala yuñ xamul wala nangam nangam docteur am yi ko fajoon ci samedi bi nee nañ Ousmane Sonko mi grève de la faim te ñu ngi ko ñaan pour mu arrêté ko euh, euh, démb maa ngi dégg gars yi woo Jibi Diop ko Jibi Gueye ko wax mu naan Ousmane wax na ko ko mais nangul est-ce que ñëpp xam ne muy gradation am ñu jóge fee bëgg ñu wax ni non indi nañ ko ceeb ceeb bi moo defee nii nangoon na non on n'est pas dans ça man moom nekkuma foofu. voilà loolu moom bu ñu ko bëggee dañ koy delluwaat aux sources wax ko waa passé waa passé publié ko ci seen page yi Ousmane fu fi Ousmane Sonko waxee woon déclenché na grève de la faim. voilà waaye avocat am tam ngeen wax ko ñu changé seen discours ñëpp changé seen discours ñu mun a retrouver sinon kii day wax gauche kee wax droite voilà. waaw lii laa ko wax nag buñ paree mu indil ma preuve bi comme quoi que après moo laa démenti mi ngi nii na am na démenti moo laa tu avais raison ma ne ko man wutumay raison wutuma dal je gagne pas ça je gagne rien je gagne rien parce que alxuraan bu may bu ma ci gagné yàlla donc maintenant loolu nag ba leen di déglu souvent da leen déglu ñi wër Ousmane Sonko ñu ko jege lool bu leen nekk ngaaka de wax ji day bëri de mais am na ñuy yor Pastef yu yuy jokko ak ak ay avocat Ousmane Sonko wala ay avocat Ousmane wala ñu ko jege lool mu leer donc ngeen bàyyi ci xel bu leen kenn manipuler donc Ousmane Sonko mi ngi ci grève de la faim boo leen ko bëggee xeexal ngeen xeexal ko boo leen bëggee toog ngeen toog lekk seen ceeb mais taxaw fii dañuy wax ne ay grève de la mi ngi grève de la te wax naa leen lu waral grève de la faim bi point avance. comme ni ma ko waxee euh, di leen waxaat encore ki nga xam ne mooy médecin bi nga xam ne dafa faatu médecin bi nga xam ne dafa gaañu waxoon naa leen dem ne dinaa leen ci defalal ay enquête boo leen bu baax danaa leen ci defalal ay enquête parce que man yu ma xamul damay def ndànk ne leen may leen ma tuuti ma dem ñëw dinaa leen ci defal ay enquête parce que bugguma wax lu dul dëgg man loolu moom daf may sonal quoi vraiment xeex bi dama fiy jiitu maa fiy jiitu xeex bi man maa fi jiitu xeex bi donc xeex bi mënu fi ñëw ba changé ma ba pervertir ma damay continuer li may def bu ëllëg keneen ak keneen ak keneen ak keneen parce que moom dëkk bii dama ñu ni ñeneen ñi di di war a am noonu laa ci war a amee ci njëkk ba ni ñeneen ñi bëggee defar dëkk bi noonu laa amee envie defar dëkk bi te du ma ko defar ci ay kàcc ki fenn ay sos ndax kenn du ci sama baay kenn du sama yaay kenn moom ma kenn yilifuma ci dama libre donc du ci waxal kenn docteur bi.